dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen ikaay ñu xëyanto kuréel gii di Sénat xam ne ñoom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum élection yi niki démb def nañu ab rapport ci élection locale ñaar fukki fan ñett ci weeru janvier yi nga xam ne moom la génn wax nañu ci processus électoral bi wax nañu ci contentieux yi wax na tamit ñi nga xam ne ñoo respecté wu doon parité ak erreur matérielle yi wax na tamit mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon déposé te daal ne tamit ñooy waa Sénat ne ñoom la ñu jot dépensé recommandation yi mu def ma Populi ak L'As xëy di ko dëggal yéenekaay gi di leen foo gouvernement face à la presse niki démb Omar Gueye mi nga xam ne mooy porte-parole gouvernement bi yëkkati na ay kàddu wax ci conseil de casserole bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi ñoo ko woote woon àllarba ji nga xam ne moom la ñu génn nee na nga xam ne ñooy opposition bi maanaam dañoo amatu lu ñu def ndax leer na leen ne mënuñoo mobiliser loolee moo tax ñu nekk fi di caaxaan te moom Omar am na ñaari étudiants yoo xam ne am nañu ci ay gaañu-gaañu yu métte métte ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ndax nee nañu ay paaka lañ leen jamatee am ne ma a kaay gi di bés bi ñi nga xam ne ñooy waa ñoom nañu ak taskatu xabaar yi waaye nag ñoom ñoo ngi yuuxu victoire nee nañu am nañu victoire jamono ji bu doon ab référendum askan mi ñoom la ñu faral ndax ñoom nat nañu seen bopp te li nga xam ne mooy conseil des casseroles yi dafay faral di wëy maanaam programme la te nee nañu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin nga xam ne bëgg nañu ko amal ci Sénégal gi ñoom nee nañu danañu ko def mu neex Macky Sall ak mu ñàkk a neex Macky Sall Ousmane Sonko nee na Macky Sall xamul waxtaan xamul yeela li xam mooy jàmmarloo maanaam xeex loolee la Macky Sall xam ndax déggulul sax ñi nga xam ne ñooy kilifa dini te Macky bu ñu ko bàyyi ci li mu nekk maanaam ñetteelu mandat a am ci bopp réewum Sénégal Ousmane wax na ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi nee na leen maanaam xam leen seen bopp te am na loo xam ne Macky Sall waru leen cay na tamit ne ñoo nekk conseil constitutionnel ak waa cour suprême ñooñee la Ousmane Sonko jàpp na réew mi buy tàkk maanaam ñoom ñoo koy taal yéen a kaay gi di réew mi quotidien Ousmane Sonko nee na Macky Sall jàppaatee jël ci dugal ci kasu bi la xama ndax bi mu dikkee ak léegi lu toll ci juróom-ñaari téeméeri ci nit ñoo xam ne jàpp nañu leen ba dugal leen ci kasu bi te nag Macky Sall bëgg-bëgg ma maanaam mooy jàpp seen tedd liste ndax Guy Marius Sagna mi sa diwaanu Ziguinchor na ne foofee dafa am enjeu Abdou Bara Dolly mi nga xam ne moo nekk tedd na ne teg nañu ko loxo ca diwaanu Guédiawaye Macky Sall xam na ne foofee dafa am enjeu te Mame Diarra moo nekk deuxième ci liste département bu Pikine te Macky Sall dafa bëggoon a jàpp Barthélémy Dias Macky Sall li mu bëgg mooy jàpp seen tête de liste yi nga xam ne maanaam gox yooyu dafa am enjeu ngir bëgg gagné élection yi waaye nag loolee maanaam du ñu ko ko may tey du ñu ko ko may ëllëg yéene kaay gi di enquête nee na ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi ba léegi ñoo ngi jël pression bi maanaam di ko tekk ci kaw Macky Sall yéene kaay gi di vrai journal xëy di laaj nee na ana ñi nga xam ne ñoo doon défendre Macky Sall yéene jë ko ak l'observateur wax na ci force spéciale yi nga xam ne wax nañ ne dañoo jugoon ngir bëgg a taal am na ci fukk ñoo xam ne teg nañu loxo yéene kaay gi ne ko di réew mi di ñu xibaar naan ñu recours bi nga xam ne maître Abdoulaye Tall dugaloon na ko cour suprême ngir ñu supprimer parrainage bi loolee cour suprême daf koo gàntal ni ki démba yéene kaay gi de la bi nee na giraawal yi ak njombe yi nga xam ne mooy am ci réew ba ay nit di ko waral te loola rek doy nañ woon ñu jël parrainage bi gas ba mu xóot daal di koy suula maître Abdoulaye Tine moom nag tàyyiwul ci mbir mi ndax nee na dina saisir ñi nga xam ne ñooy commission bu CEDEAO ngir parrainage bi nga xam ne Sénégal ma ngi koy doxal ci anam boo xam ne jaarul yoona yéene kaay gi de la soloy xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Kabiline Diatta mi nga xam ne moom la ñu njortu ne ab rebelle bu ñëwoon Dakar bëgg fee def ay ñaawteef yéene kaay gi ne na mandat nañ ko dépp niki démb bi di Sud Quotidien ministre bi ñu dénk wàllum xar yi ne ma élevage démb yëkkate nay kàddu dalal na xelu gi nga xam ne moom la ñu tëg ma yéen a gii de la sa njiitu réew mi di président Macky Sall nee dafa bëgg a soppar ñi o ouest bu Dakar lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay milliards la bëgg a def ci corniche ouest bi bam na boy yéen a kaay gii di direct news nee na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk seen o jamono ji mer nañu ba mara détaillé ndax dafa am négociation yoo xam ne moo doxoon seen diggante ak direction générale ba waaye nag négociation yooyu dafa mujjee lajjee moo tax ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi fas yéene nañu nag daal di grève dugal nañu après avis de grève yéen a kaay gi di stade xëy xibaar naan ñu duyoo maane saane loole la Bayern bëgg waaye tamit na bëgg na leneen ndax dafa bëgg jël Cristiano Ronaldo andi ko na ngir mu wuutu fa Lewandowski